متسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمد المختار في القدم مدني وسليا يا إلهي به وجزيا الحاج مالكنا عنا محمدنا مختار في الخدم لله در مجيب بن قال سائله إن الر الرسول بقدر المرسل حتاكي مولانا وصليا يا إلهي وجزيا بالحج مالكنا أنا محمد وأتى ختم قدوس تنهه اتا yourself Come on, come on. na de Cheikhu Tijaani dama jox hmm. ndax xam naa ni woyegoo maam Abdou nee na koo àndal fukki at ak juróom su la nee woyegoo rek woyegoo waaye nag danu tàmm di def saa yoo ko ubbee rek jox ko parce que kër Cheikh Seydi Hadj Malick moo hmm. bindoo loolu demoon Dakar jóge Ross Béthio nit ñi ñoo bokk benn dëkk suñu demoon fekk daam dëkk day def nii teral mu ànd ak njabootam ak yéen lu mat juróom-ñaari at nii nañ koy defee ci nga bokk kon noonu lañ koy def te Oustaz Ablaye dafa gëj jaabante fii fii dañ fi war jaabante wax fi yent yàlla Muhammad tey la bisam ya leeral réew mi bu am leneen jëlal sa yëf mere maam ah bu rafet la ndam ana ku sopp Maodo sa sa ana ku ci kaw jaaraama amel na lu njukkal والبرد كسي والقم كسي والبرد كسي والقم سنو سرين كسي والبرد as aka ñàkk a ki ñaan ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm ba doola sax du gërëm réew mi di Sénégal la jàngalul ka la jàngal ka ko jàngal ka mu jàngal kooku Maodo may ki ko jàngal amel na lu njukkal amel na lu njukkal mawlaaya salli wa sallim mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan alal habiibi ka xayril xalqi kullihim maam ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm baadoola sax du gërëm réew mi ku Maodo jàngalul kala jàngal ka ko jàngal ka mu jàngal kooku Maodo may ki ko jàngal ay jaaraama mudarrisan kulla ilmin kaana mundarisan bayna almadarisi bi banan wa suwaana maam as Maodo njaag fa tabarakallah muy afwan baax daam ne nan taxaw amul toog wax na dëgg wax na dëgg tey guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam toj jataay bi acca bismillah waaw anam ana beneen micro ana Modou Modou ubbil ko rek tabarakallahu mbokk bi assalaamu aleykum wa la allah allah waaw dina ko ibbi maa ngi bëggoon naa ñu déglu ma maa ngi nuyu bu baax di ziyaar borom kër gi muy Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha waaye sama soppe sama xarit muy Allah Mouhamadou Mansour Wade di ko dalal nuyoo bu baax di nuyu bu baax nag suñu buntu fii ci kër gi Allah muy bu baax sax danaa ñëw nii di ko baax ñoom nii di doon dikk bii yëf yi ñoo ko sosoon ñun ak suñu gis-gis par mille nga xam ne moom daal la nga tegalee yang barka itu, woni barka la ta ustaz wai dai woni ni to ustaz wai dai mari mungkin karena mari sering jaga ubah mobil sen ane dia dia kira tiba ubah nak ubah software jadi ya mau dan dikontrol insyaallah yang mana يسمع الدين Amen.

Lord, Minimum. ربك مغفور بإفادة أخلاق الدين سلسلة لديك سوف أجاب أجاب مقامي سافر بعيدا وإذا أرى في الجزاء قد سليها أمر النبي بذنب ما والنار

No, no, no, no, يا أولا يا أولا يا آخرا يا آخرا يا ظاهرا لو نور مسائي أبدك يا أولا يا أولا يا آخرا يا آخرا li may bëgg a bàkk mooy sangu góor yàlla yi waay ana ñi bëgg Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Sëriñ Cheikh Tidiane Sëriñ Cheikh Tidiane Sëriñ Cheikh Tidiane Sëriñ mooy Habib Oumalaay Cheikh Tidiane mooy Habib Oumalaay Cheikh Tidiane mooy Habib Oumalaay mooy Habib Kouramaay ci may bëgg a way we borom faas ak Miknaas borom Dardaas ana ñu bëgg Cheikh na Tijaani alibaan ali aliyaan أبا العباس يا كنز المهار ويا فقر الزمان بلا مثال شيخ تجار ويا بدرا يسعي بكل قطر ينير كونا يهدي من جلال شيخ تجار فهذا قلب عبد ذكر يؤمل من way dem bi tawaali Cheikh Tidiane wa maali xayru baabika min balaami ayaa sayti fa jubli bil wisaali Cheikh Tidiane wa sarmul ah lil mahbubi saytu asam ala al muridi min al miraali Cheikh Tidiane yéen a béykoon ne ko sama doom tabannaaka rasul waxaala inni مربيكم إلى سبل المعالي شتيا بهم أكتاب نانو كل سر فحاموا في متاعات الجمال شتيا فأنت النقد والكتم المكرم أبا العباس يا حسن الإنسان شتيا سراسر النبوة فيك حرقت وباب بعد سمت بالإله شتيا أريد يا نبي أريد يا أحمد التيجان خطب الوجود ونعمة الأكوان أنا يبقى سيد تيجان يا راحلا متسبق الركبان نحو الجنان روحي والريحان أدي القلوب من أسير ألاقتي غسل الأواجس مدة الأزمان أبي البيان لقولها متسعيفا بالوافدين وجملة السكان لولا المقادير حكيم إلهنا عرفوا بما تحوي بما تنسان لا تحسنا نتوسلا وتدرعا وترقعا للحين والتيجان سلمى وسيم زيادة بتقرب تدعو غرابة سائق الأوطان دهر كمو وجمعوا ويزيد من باسم المحيمن بارك الأكوان يوم بدت تهي ولا بتأينهم من كل ماء نازل والآن وتصحصحت أنواعها وشعاعها وتغنى بالاقطار والبلدان كم ساعدت عين الاقيم خطر عينها وتكسفت عن فتحهم نورا شهدك هذا الذي انسان عين حقيقه متصرفه بحقائق الانسان شهدك هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الايات من قرآن شديدا وهوى بمرداد عليم بسكته من مقتضى القرآن والقرآن شديدا ختم إلى يتما قطع أمر به فتمنه وتجده القرآن شديدا هو من نقل بحرين أي هنا ويسر متصرفا بأقايد أذهان شتتة وتواترت وجه الله من بحثنا وجب بلا أسر وكتمان شتتة وأحمد ومحمد نجري ولي مختار نجري الجد أحمد ثاني شتتة هذا السليم محمد ذا سالم حقا أبو الله وقدوة الأمان شتتة وقدوة وهمة وهمة وتحفة وتحفة إخواني الشرفدا ورحمة وهداية وكفاية ومزية ونعمة إنسان شرفدا التصور مولى البرية سفاءة يكفي الشروط به عن القرآن شديدا من كان يطلب ينال بسفاءة من أي حد لا ولا ميزان شرط جار فصلاته بصلاته دامت على عين النبي وسيد الأليان الشرط جار مراد الرب بعده لا تنكروا وأجنبي وأقل بها سيان شرط جار هذا ما قضى عن العارفين المؤمن كل أولياء يا رحمن ابي العباس احمد التيجان خلاص أبي أمر كبك شيخنا نتيجة سبوريا يا وسوبي من دنا فنت وي دكان شيخ تيجان سريف كان يوري شيخنا التيجان شيخنا التيجان شيخنا التيجان Cheikhuna Tiijaan mooy sëtu ngëm gi mindéef di sët ci donoom ca leer yaa ca mbóot yaa ngëneel yaa ci may Cheikhuna Tiijaan moo leen sut ci xam-xam te mën leen ci diine gën leen a ragal yàlla gën leen a ana ñu bëgg Cheikh Tiijaan boole nit moo leen mën ci diine gën leen a ragal yàlla gën leen a set yëre ci gën leen a xay Cheikh Tidiane boo koy limaale ñëw ci wilaaya kalima tukkal nga limaale ki bëy Cheikh Tidiane boo koy kiyaasam ñoom ci maqaam tarab waane nga limaale ki lay yeneen baa ko jox tariixaam ak i sàttam

su dee war di daanu su dee sànni mooy su xiini bu ko su doole du ñor la su ñor lee du am rek ci yaakaari mbay bi tariixa ku ci soobu pour siyaara ku dul noonu tey mel na doy ana ñu bëgg Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ku jël kurusam له شيخ في في استعانة بشر بشر تجان شيخ تجان بجل كروسم يلا دايرة غسلنا بمسك ويت ما يكملنا الوقت بتاريكو يكروس بقص بقص دوري بلا خلل نور طول دراسة لا قلب لا بالكو سسرين بمحبة جناو bay moytu jàng far di la far di mës bu yàlla ci yow nga alkuwaale ko ana ñu bëgg Cheikh Tidiane Chérif ana ñu sopp Cheikh Tidiane Chérif ana ñu bëgg Cheikh Tidiane Chérif ana ñu bëgg Cheikh may ca leer ya ñam naan sëf ko suuf si ak asamaan jëm na yam dasaay buur bi moo ko ko may te daan ne ñaanu ko ko. ko suuf si ak asamaan. jël ma yem tasaare ko. man daal te dina mi ci njël. ay pitax ci garab ñuy tawat. te dina mi ci njël. ay pitax ci garab. ñuy tawat na hadim ab la ci moo ko këf waaw mi pitan noon ndax du mar mu tarwaa ko rey mi pitan naan mi di way mi di jooy mi di way mi di jooy mi di way mi di jooy mi di way jaar ñii di way ñii di ñooy kii di way kii di jooy am aw xaraf fu ay xadil dee di way Cheikh Tidiane moo ko jar an ko way mag du kaf ay bëgg Cheikh Tidiane man de maa ngi naan ci tay yéen xanaa du ngeen nelaw ñu naan ñun danoo sib nelaw ki koo gis muy nelaw ak joxee lam daama tuuf koo gis muy nelaw bu ak joxee ma tuuf ay bëtam sax mu rab ana ñu bëgg Cheikh Tidiane daagu leen ci lefam yéen Tidiane daagu leen ci lefam daagu leen ci lefam daagu leen ci lefam daa diram gaa ñawar naari góor tey dawal aw yeneen xeeti lëf moo tax Serigne Babacar mu xam yàlla nga xam Cheikh Tidiane naan ak ni Serigne Bal Fatimiya sarafatan faydal alim nabla nabi bahar simi Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane man qatruhu bayna al anami ana fuhu mawlaahuma maa kat hawa bi makaarimi ana ñu bëgg Cheikh Tidiane man misluhu waaw aw zulmataani bi kulliha lamma hawa min attamaamata qaasimi yaa qudwatal awliyaa وحكيمي زمزمي ومقامي جملتي أرمي أكرم بميقاتي بنت بكرني نصر شمس المعارف بل نظم المقاتل بل بدر بجاسر فقيد الخلود موي مفتاح كل ولي الله قائلهم وكفت شقيا بخير سرك موقف الولايات سن بابا كرسنين سخن التجاري كتب اشتياقي قدموا وجطهوه أيا منتصر إني غريب الوفاة فإن الدفرين الشيخ أولك جناب ولي الله وهو المرأة جناب ولي الله منتج مهدة بلا مهلة يا ساتي أنا التابع مكارم الأخلاق وتغيب نظمة رازية وأفنى في البدر الفارة وفي اللوامح سحمة جان مدن تكوي جمعهم سكان وهو حق الخلود ذاته وهو رحمة بل فتنة بل رافة لا شقة وذمة ومنافع منيح بأمر الله مرمى وسلة فمن أسره بين الأناقي ماله طلقت لنا فقر بلاتي بتاج العارفين ومن كل أبي الرحمن أبو العباس أحمد بن محمد الظالم التجاني ابن الأمة Oh.

Yeah. ¡Sí!

ثم قلب وين سخر وقت ويمني لبنه وين سخر ويمني الأنبياء يدفع المسخر وأنبياء تنسخت يمني والأنبياء تنسخ جمل فيغلب أين شحت والتي لتنسخ فيغلب أين شحت رابط تمتهدنا ثمرات تصر الراحب يا أصيا مولاي يا يوم حمدها Thank you. Hadj Mo Omar wàcc ci Cheikh Seydi Hadj Malick jàmbaar eh. ci Seydi Aboubacar jàll ci Seydi nag xaaral ma way sama way maa ko way tey yàlla dogal na maa nab nabi ci sama xel boole ko tagg ci yonent bi te yonent bi moo waxoon ni képp ku ma way doonte benn araf la ah, sa mbagg ak sama mbagg ba àjjana yemu ma ci damaa defar une soirée say bourse damaa defar benn riyaada dog daal di daal di wax yàlla ne ko way lii ma lay yonent bi defuma ko ngir buukare wallaahi defuma ko ngir siiw waaye dama ko def muy taxab bu len li wàccee daay ma ni tamit ci riyaada bi wayu bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi yëpp ni way naa ko yow laa koy jox yëpp ni way naa ko loolu rek moo ma ci yitteel ma dem ba studio way ko yàlla dogalit nit ñaa ngi ma ciy wax ne ma macha allah neex na kon dama koy way su ma paree li ci ma teg ko ci la ilaha illallah la ilaha إله إلا

محمد محمد محمد Jesús بلال الوقت فاتم مولك حتى أردت وهو بدين وارفع مقدح عينتين هاجر من سندائها والغير وعتب بيديسر في بجانب كذا هو راغنا وبدين وارفع Yeah. Hallelujah.

I'm Oh, ojitu yata kwaja toida gurba aljana nun kandar ma aljana bai mai amma tai toli toli yawal qiyamat ifalani tobi waqta kujisu kusin baba karma yadari la haydana la haydana la haydana fe yari la haydana aban bakar sunu sirin jafar fada jafar nanu sunnan sharri min yadasna hoy surayatina surajin min nabi yadasna hoy surayatina surajin Yes,

إساءة الدار تتماكل في القتل أخذ الخداوي تتماكل في القتل سلوى خداوي تتماكل في القتل يا سائد الشغدي ارجوكي وسابع درجي ارجوكي لا تخيرن بكي كي كي zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba wadan asaka saidana kam isa kam isa kam asadaka wadan kam wadan sunna kam asada khaira ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba ai muna zakati baba

لم يكن هما خلق في كل نور من النورين عينان عينان عينان لم يكن هما خلق في كل عين من العينين نوران رحيم رحيم علقت سيد الجميع dama bëgg way seen jëriñ la suñ seen mënul bi sama maa ngi leen seen mënul mu way seen jëriñ ilal jëli mu la biyal dama bëgg xam nga borom kër gi sëñ Moustapha lañ ko tuddee te man tey damaa waroon dem tàggu saa yu may génn kon il faut ma bàkk ci jëmul tuuti rek borom daara ji daa toog Dakar ba mu yàgg mu yuuxu ne ay sama jën dugga ay sama jën dugga man da baax la sëñ Mansour ne ko wax ñu sa gént gi mu ne dama tëdd guddi gént Seyduna Muhammad génn àdduna ñu ne ma dabaax yaa koy jullee nee mu xëy rek ñu ne ko Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha génn na àdduna Mansour mu def ci moom marsiya ne raaxal jamiilu ilal jamiili munabbiyan لما دعاه رب سبحان ناداه يوم الأرب حائس بيئة فأجاب مولانا بدون الدواعي ليريه ناداه يوم الأرب حائس بيئة فأجاب مولانا بدون التوالي ليريما قد كان أسل القوم من الأحمال برا طالبا ركبا ديغال مام تباخ لي مام دم سي جميل وجل نجل وجميل الله تحته ما يحب الباقين من بي jëmin soodaane déggal man nga baaxee seeni jëmin yi jikko la jikkoo woon lii nag wa aadaaban wa xusna siyaasati akrim bihi ma innahu wa min saani ana ñu sopp seydin jëmin jëmin xawkaana asada qawmaloo ataqaawmaloo في هدي خلق الله أحمد فاني ديغال مان دا بات دي نيان شبوت سيدي جميل لا يالا بارك له يا رب في أولاده مدحهما بالهدى والإيمان واجعله يا رب صبورا حاملا كلا ورا لله ذا إحسان باللين وصبر الجميل وحاملا كرم الورى منصورنا وحناني ديكم من تبع دنيا سيدي محمد المنصور سجميل نان يلا يلا نجابنا الميرم نصرك النصير يا من شاء نصرك المسيح يا من والولاء كنت مرتبتي رمنا بعد فراه ولاي مودي بابي سليم بي نيب ديراه ولاي مودي بابي سليم بي نيب ديراه ولاي بسم الله من الرحمن الرحمن ولاي جبال بي أكتاوان بمن بمن أسولاي سجل جي Voilà.

maa ngi keluar njëkk di jégaluwaat seen Mansour ak seen Moussa Ba lii Mansour moom moo ko defloo rek maa ngi ciy jégalu nag ñëpp Oustaz Lalla moom it dafa ci jégalu ak bu baax dafa mënul ñàkk rek waaye loolu nga kon dana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لامم يرنيو بلي دوغلي تي بير ني بي دال بايو ني وفي سيك داي جوخ تورو جوخ سانتو واي ني سيك نيا سانت على دي موي سيك لا ني ووي سا باي تي دام على رقي ساري سياي لجي نك جامو ني توك ci ndigalal sëñ Mansoor sëñ Mansoor Fall mii toog wax nekk li ci gën a am solo wax dangay wax la wax nga xam ca dara Ousmane Awa Diop ma Samba Gaye Njawar kii di sëñ Moustapha ginnaaw raa yontu faat jii ñu koy ñaanal gudd fa ngànd wér ak wa ak famille waa foos yëpp dañu nekk ndar waaye ñu ngi ba ñu ngi dëkk ci dëkk bu ñu naan foos ci waaro du taalibu sëñ Moustapha Jamil moom mii sëñ Moustapha Jamil lañ ko tudd waaye man sóor wàdd bii di doomu ndeyam di xaritam fa tabarakallahu seen diggante di samedi ak dimanche man soxo mii ñu jox micro bi ma xam ci dara waaye waaye ñuy ñaan suñu borom yal na yàlla sàmm yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla wattu yal na leen yàlla làq ba yàq yegul ñoom ñaar ñu bëggante yàlla boole leen ñu bokk pas-pas sëy yaa may ci seen sëriñ sëñ Mansour nekk am kàddu yu suñu mbokk waykat yii tabarkàlla ñëpp seen yaram tàng na tàngaay yu métti na waaye nit ñi toog bëgguñu ñoom ñu noppi ndax lan moo ko waral bis bii tey mooy bisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te noonu bu duggoon tey Moustapha du nu am ku ni kenn ku ne dégg nga sëñ Mansour ba tey mu wax muy wax ni sama maam ne ci bis bii sama maam ne ci borom bis ki tax nekk nga fekk ba ne xoj bay jàkkaarloo doomu aadama yi waaye kooku bisam loo ca man war nga ko ca def sëriñ Mansour Wade ne am kaddu ay kaddu yu mu bëgg a jottali mbooloo mi kuy dem yóbbaale sëriñ Mansour ne mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ne gannaaw bi ñu musuloo seytaan bismillahi rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah kulli alemin. ñu julli nekk ci sangu sangu yi sallallahu alayhi wa sallam. ci sant ne? bala ñuy sant kenn ñu sant nekk suñuy waajur yu góor ak yu jigéen fi ñu tàmbalee. sooy jóg di jëm ci kilifa da ngay am teggin da ngay am teggin am xorma am jaaruwaay am jaaruwaay yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonk na ko fonk koo xam ni soo ni bëri jëm ci kaw man nga ak nit yàlla moo jël ci leeram te wàññiwul dara ci leeram jox ko Moustapha terale ko àddina ak alaxira li mu jóge ne yëpp mu gën ci ci xeet arab ak lu dul arab kon suñu jëm ca moom kon nag booy jóg di jëm ca moom te yàlla tax te yàlla tax ngay wut yiw di dàq loo xam ne di dàq loo xam ne benn bés benn bés benn guddi man nga ci defaru ne àdduna ak alax da ngay jaar da ngay jaar te ñoo xam ni egg nañ démb te te tey door a ñëw nee na loolu moo tax bi ñu sant yàlla ba pare ne borom. digal suñu borom. ngir booy julli ci yonente bi. wala ngay def tawasul ci yonente bi. yàllaa ngi bég. di seet. ثم صدق الرسول الله فورفتا تمبالين أصحاب الرسول سيدنا شيخ المشايخ من مولاه ما غفر ما أدنينا بكنا الأصغر بكنا ولي أترى نجم كوكو جوخ بمتين بولتي ترى ma addu nee na bu leen gëstu mbootu nit ñi bu leen ko def dafay jur bural koo xam ne nii deesu man melal ku sopp da baax naa dëkk man abdu nee man sa cosaanal nit ba xam la bàyyi fa min na niin tum naa ko waral xanaa réere mawlaana al ali aji bindi ji fa man fil xalq maa shaahu faal na ngay wattu rey ak ci sa bopp loolu jaaduwul ndagam am jaam nga xam nga ni loolu xelul man Abdoulaye yaaya naa kasaalika ki ñaan teg leen ko day lekk seeni yow kama taakulu naaru alxashiisha axiiwatul man Abdoulaye yaaya naa kasaalika jiw naa min bayi leen ko fu mbir mu baax fa fi l ujuhaati daa fa gis lii ma waxtaan وصفنا بغمان الدخول موحتنا منحتنا على الصلوات الخمس قوموا وحفظا فذلكم الوسطى فلا ويح من خفر منحتنا يرب لك عباد الله يا قوم تسلموا من الأول بسبوخ النكم بجنان عبد mam ak nee na soppe Taaha du jaaxle ëllëg ca bés ba ñun soppe Taaha def nañ ko bés ba fi baax seeni xol te déglu ma tuut kaw mi ma wax leen lu leen defal ma abdu neena wa innani bi bismillah alaaji abdu man dafay sama rogam dëpp moo tax ma bàyyi la sama koñ tuuti kii sama doom la maam abdu sa baax jox ko fii si teewoo ñi fi teew ñu ngi nii man sama lépp la moo tax bëgguma nga xuus wala nga xuus xaaj Mansour taxaw léegi léegi Alaaji Mansour Alaaji Mansour ne ñu ko mu góor yeggale kàddoo góor yeggale kàddoo góor yeggale kàddoo su ma nee ñun ne su ma xeeri ñun ne su ma xeeri ñun nee na képp bépp doomu aadama wala jullit bu doon baax ngir yàlla bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñaan yàlla nekk taalibe Cheikh. rawatina nekk suñu borom dimbali la ba nga nekk nekk taalibe Cheikh. di ñaan yàlla nekk taalibe Cheikh. yombul yombul. yombul yombul. taalibe Cheikh mooy tax nga nekk taalibe Cheikh. nekk ni ne yow taalibe Cheikh la taxul nga nekk taalibe Cheikh. tànneef ay ay tànneef la ñuy doon ci biir taalibe yi waaye nee na ñun nag li ñu ñaan suñu borom te sañ nañu ko ñaan te moomu sàkk bindulu waaye waaye nag ñu ñaan leen ma ma may leen yàlla na yàlla muy def nu nekk ñuy jullit àqal def ñu taalibe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nit ñu bokk ci njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci lu wér. maam Cheikh Al Khalifa Seydi Aboubacar Sy. maam Seydi Aboubacar Sy borom bu nekk àll bi. dafa daan wax ni yàlla na ci yàlla seeyal. loo seeyee ba pare. mucc ko dara du la ci génnee. suukar ak ndox jaxase. ñu ndox ak xorom jeex na. mbir mi noonu la tëddee. kon nag. du bëgg wax moo ñu taxawal. ne du bëgg wax moo tax mu jël kàddu moom Mansour Wade. woote daraja moo tax. di woote daraja daraja taxul. woote bokk fenn moo ñu taxawal. di woote fii laa bokk fii laa bokk taxul. rek tax suñu borom rek taala tax muy wax. rek tax rek tax. rek tax rek tax. kenn du yonent sallallahu waaye nag am nañu nekk sañ-sañ tekki ni góor yàlla yi kenn du seexul tijaan am nañu sañ-sañ boobu wax kat sama nijaay sëñ Cheikh Tidiane si Almaktoum nee na sama nijaay Cheikh Ahmad Tidiane si Almaktoum yàlla yàlla yokk leeram dafa ne nit doo ko xeebal bésam doo ko xeebal sëriñam doo ko xeebal soxlaam am nañu ne ni sañ-sañ ñu ne Cheikh Ahmad si mooy suñu lépp yàlla na ko yàlla nangu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu yàlla Cheikh Ahmad Tidiane Chérif tamponné tamponné ñun ni ñun ay taalibe Cheikh yi ci lu wér ci kaw loolu ci kaw loolu Sénégal gii ñu bokk Sénégal gii ñu bokk yàlla boole ñu yàlla ñii ñu yàlla boole bu ñu yeggee ci Cheikh Tidiane Alaaji Omar Fuuti Taal yal nañu yàlla boole ci njabootu boppam maam Seydi Hadji Malick yal nañu yàlla boole ci njabootam waaye nag sotti ci ak def ci lu wër loolu nag moo tax bi ñuy teg ñu jóge ñu jële ci yonent bi jaar a Cheikh Ahmad Tidiane si. wàcc ci maam El Hadj a Fouti yu. amul diini wa taxwa. Serigne Babacar si way. wàcc nekk. noonu la ñuy dëgg dëgg dëgg. ki ko yor. ki ko yor. te ñu bàyyi ko. loolu jiitu juddoon. Tiwaawoon bii. bii. yàlla dafa dogal. yàlla dafa gu ñuy naan El Hadj Omar Fouti Tall. góor gu ñuy naan El Hadj Omar Fouti Tall. ku yàlla mayoon. ku yàlla mayoon. dem na. dem na. ba war a taxawal tarixa. ba war a taxawal tarixa. ñu nañ sax jox la garanti. mën nañ sax jox la garanti. waaye nag. waaye dëgg-dëgg. soo soo suñ la ko joxee. suñ la ko joxee. li ngay am soo nekkee si des si tarixa Cheikh. boo nekkee tarixa Cheikh am. soo beroo. doo beroo ko am. góor gi nangu boot. góor gi nangu boot. topp Cheikh na Tidiane. ndonali. ndonali. doon na Amadou Cheikh di doomam. di am doon na Amadou Cheikh di doomam. continué na mission bi. continué mission bi. njaboot jaa ngi fi. njaboot jaa ngi fi waaye dëgg-dëgg. waaye dëgg-dëgg. maam Alpha. maam Alpha la gis. la gis jox ko. jox ko jox ko. kuy ñëw ni nga kii ñëw. Seydi Hadj Malick. Seydi Hadj Malick la tudd. lépp lépp su jotee. bu jotee benn bis bu loolu jotee. sa Seydi Hadj Malick maam Maodo. jàppante ko la nii la rex. su joote defoon ci bay noon na te jaay bu sax cëram dootul sala sëñ Laaji Maalik Mawdo ayaa say xanaa ñun danu ma te mar ma meesu la tak ku duyal du nan nax hada an busan dawlat هل فقال bu mu fi bàyyi. kon nag kon nag kuy woote ni taalibeel bi wala da koy bi guddi gi war na la jaral coono xiif mar di taalibe Seex. di taalibe yonent bi. di taalibe Seex. waaye nag. doy loo nag Seydi Hadji Malick. kii. sëñ Moustapha Jamil borom Faas la ko bàyyi tudde. ngir. bëgg bëgg bu mu bëgg Seydi Hadji Malick. mu wóor ne. te mu wóor ne. Seydi Hadji Malick. ku jaay teg moom. dana la woon boppam dana la jaaral ci Cheikh na ci jaat jaaral la te yonente bi mu yóbbu la ca yàlla. ànd ak ànd ak. taawam taawam. maa ngi ne góor gi El Hadj Madou Niang. nee mi ngi doon wax ci góor gi El Hadj Madou Niang. ànd ak taawu maam Seydi Hadj Malick. ànd ak taawu maam Seydi Hadj Malick. di taalibe Sëñ Babacar di taalibe Sëñ Babacar. ci lu wér. ba Sëñ Babacar. ba Sëñ Babacar. mission di jeex. mu boole nag turandoo kii ma nga ca dëggal ba léegi ku bëgg noppale ko ku bëgg noppale ko jàppal jàppal te tal Seydi Hadji Malick moo jur ku ku bëgg a ku nekk nga dem seet nekk koo xam ne fay taal yàlla mooy dogal lu ne am na fu mu koy jaarale. am na aaya bu gàtt. am na aaya bu gàtt. qul wallaahu malikul mulk. waaw am na benn laay bu gàtt bu tax qul wallaahu malikul mulk. Ablaye Dieng. Ablaye Dieng. nit ñi ñu xam. nee na qul wallaahu malikul mulk Ablaye Dieng ñu firi ko mbooloo bi ñu dégg. waaw. xoolal joxal daam mu jàng nga firi. incha allah.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 يؤتي الملك من تواه وتنزع الملك ممن تواه وتعز من تباه وتذل من خير إنك على كل شيء إعادة لكل حرف كتب أو يكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين وصل الله على الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا المتشيحين تحضر لنا بهذا المحضر فلتعتفي بنظرة بها أنا لوتري بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ñu sant yàlla jëlelu ci rasulillahi ñaanal sunu sëriñ si Seydi Ahmed Tidiane ñaan yàlla sunu boot ci moom ak sunu njabootu sunu tijaanu yàlla yàlla nangul ñu ko ci Cheikh Seydi Ahmed Tidiane يلا نمسك كذا تسعه حد ماي رضي الله تعالى عنه خلنا سوق ده في الجفة دي كل دقرة جاب في يوم لم يفي يوم تي القرآن دخوا عند في كل بابي هو إيه؟ يلا تعرف ba bii ñu di daje bu yàlla dogalee ñu séddu ci ñu sant ko sax seen xarit loolu la yàlla dogal ndax seewul xarimaa yi balaa ñuy firi aaya bi wax ساحر الحاج مالك رضي الله عنه مصر عدنان مالك نحو وقتان مالك ndigal jib na alquran suratu ali imran mooy jàngale màggug yàlla ak wax ni yàlla mboolem teraanga yi ci kattanam la ne moom yàlla لا لكل مالك ولا لكل ملك مالك وليس للملك مالك ملك بل فرق من الوهم موم تاخد نيك بور ولا يكون بور موم سنتني الله بوبو mu tudd buur bi mën boppam moo tax mu ne bi qul allahumma buñ la laajee yàlla lenn li mu am di ko sédde ndax te mu bokk ci cëru àdduna yi yàlla ko moom dafay abale mu ne bi bi la laajee xul waxal ni allahumma yow xul allahumma malikul mulk mooy borom nguur tuppil mulka man tasha te bu ko fi am moo la ko def moo tax war nañ ci dégg ni coono bi ñu nekk ci suñu réew mi tojantay bopp jaabante war a nekk président Sénégal deux mille vingt quatre yàlla noppi ndax moom ci la war na nekk te pare na képp ko a def wa tanzi al mulk mimman tasha nee na bu mayee nguur moo koy nangu ci ko neex moom yàlla kon yàlla mooy joxe nguur war nañu xam ni ku mu wàccee war nañu nangu ne yàlla mooy ki ko wàcce ay pexe falul nit waaye ay pexe folliwul nit wa tuzillu man tashaa wa tuizzu man tashaa ku tedd yàlla ku tedd di yàlla la ndax bi yadikal xayru la alquran wax يو تكتب يلا لي إنك على كل شيء قدير مش كده نوقت بعد كعب بيت دجال ما مصري ما صدر اللحم بوما نادها بوما نولدها الناس قد يعلمون وما ذلك على الله جاهل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكن ñu del siyaat sëñ Mansour mu yeggalee kàddu gi ñe fa tabarakallahu ñu ngi balu ak li mu wax rek nañu ko jàppee aaya bii mu wax amul luñ fi waajal yàllaa ko programmé ci ndoxee mu doxe nii du sëriñ du man du jàngkat yi bi ci afrique yi du Ablaye bi du ñu màndal du kenn mu demee nii yàlla la nañ sant yàlla ku ci gis yiw bokk ci yiw yi mbir mi noonu la tëdd ku ci leneen mu yor alhamdulilah dafa bëgg soo koy sant nga sant nekk ci ñi mu jaarale xéewal bi yegg si ci yow bu mu wàccee ci yow alaaji Modou Niang yàlla boole loolu ay soxna yu yu baax yoo xam ni yàlla dogal na ñu am na ñu fi teew Adja Fati mu ngi ci mbooloo bi di waajur sëñ Moustapha mu lim ko ak ñu mbokk jur ñëpp temps bee tax suñu limee kenn mu yóbbaale ñëpp waaye Adja Seyna bu ñag alhamdulilah mi ngi teew. jur yuusu mu yóbbaale ñëpp du ñu taaw nag yàlla yàlla dogal yi mu dogal noonu la def yóbbaale yàlla yàlla ajaa xujja jaw mi ngi fi moom nga xam ni ñoom ñett ci tënk yàlla moo leen boole woon yàlla moo leen boole woon ak góor gi ñu seel ñu seel ko nekk sëy bu rafet mandarga bi mooy njaboot jële ki bi leen yàlla boole ñu am ko xam foog na ni képp nga xam seen njaboot di jigéen doon nga ñaan yàlla yàlla may la njaboot bu mel na ñii seet alaaji mënul seet ak ñoom njaboot gi jàpp te loolu li koy maye mooy sëy jaamu yàlla déggal sa borom kër kese moo koy maye xolam set mu ñaanal la doom joo am doom ja barkeel noonu la mbir mi lu kon nag yàlla na yàlla yàggal leen fi bàyyi leen seen njaboot ñu fekkee yàlla dogal waa cité ñax nee na bu dee jigéen ñi mooy soxna yi ak waa kër matabara di kilifa ga ca foofa yàlla dogal seeni soxna seeni njaboot wa waaye am na kenn mënu ko bañ tudd maamam la mooy El Hadj ñoom ñëpp ba ci xale yu ndaw yi sëriñ sant na ñëpp gërëm na ñëpp man moom Mansour Wade bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp. képp ku dëkk si biir bokk ci njaboot ñi jàll ngaleel yàlla dogal ña fa dëkk ñëpp ña ngi leen di sant yàlla dogal yuusu taxaw yóbbaale yóbbaale géew ñëpp yàlla dogal barewul wax bëggul ñu koy wax yàlla moo dogal moom ak sëriñ yaay doom yu bàyyi di ni ñuy wax Mansour ak sëriñ moo xew ci diggante Yuusuf ak sëriñ wala lu ko raw koo ci toogal kii wax sa morom yaramam commencé taw yàlla ak lu ngeen xalaatul mu yóbbaale njaboot bi ak Daawuda ak sëñ Mbay njaboot gi yëpp góor ak jigéen yàlla dogal ñëpp soxna Adja bu ñoom njaboot doom alal yéene ku muy alal muy kattan muy xalaat mi waaye nag jaar foofu di delluwaat ci yàlla ku mu muy xalifa kër gi di xaaj mankar ñan ñekkee Italie ngant dab ko yal na ko yàlla saafara ba la doon toog ko nun ba mu jeex ñëw ba ba mu am bis wala ñaari bis muy door a ci njabootam yàlla dogal yaram bi su dante ñu fasaale ko lépp luñ fi ñaan. lépp luñ fi jàng lépp lu yiw ba mu nekk ci ay taal yàlla ko fa yàlla yàlla ko fi te yàlla defal ko sifaaw loolu sëñ Mansour ni woon mu ñu wax ko waaye nag sama soxna yaa ngi sant di ko gërëm waaw danga mënoon wax wax ji jeex ba doo wax sa soxna day leeral am na kenn ñaareel ba yàlla dafa dogal defar na bopp ñu fuddal ko waaye. aaw bi ma indaale dafa am lu dul lu lu mu joxe waajur sa ñaareel muy soxna Ndeye Ami muy soxna Ndeye Ami ja ne ko bloqueel ma ko fa looloo tax ba tay départ am na garab yu ñu ko jox ñu som ni fee mu nelaw yotoye dem bàyyi ko fa waaye ñun def nañu musiba di wala la ilaha illallah waaye ñooñu moom mars sëñ Moustapha neew nee na tey dafa daanu leer wax na lépp nit nekk bu toll ak kenn du ko dagg programme yàlla moo koy def programme yàlla koy def ñun ñëpp dafa xër ci tarixa bi dafa xër ci day xaalam day yëngatu nit bu yëngatoo da nga koy ba mu nee tax programme programme bi demee. ñoo ngi gërëm ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp. ndaxte kër gi. sëñ Moustapha nee na kër gi. suñ la defaroon. togg ñam yi togg ñam yi. ñi ñëw lekk tamit. ñi ñi ñëw lekk. amul benn sens. amul ku fi doon rek. képp di la sant yéeg ni téere la bu baax ngir gëm ñoo bokk lépp ñoo bokk ku fi ñëw kër gi ñoo ko bokkee ne pour lu fi dara yéene ko moom kon nag nañ yëpp jag yëpp baax yàlla defuñ sutura ñu fekk ay at at bu ne gën a neex at a na man soo li mu wax. nee am na ñoo xam ne kenn bëggul ñu wax seen wax. bokkuñu sax ci fan yi. bokkuñu sax ci fan yi. te ñu ngi jël ay teraanga di ko indil sëñ ba ay. bi lay wax la kooku gën ci Sénégal. gàmm. Balla Ndiaye. benn at la fi mës a gàmm. ban nag at la fi mës a gàmm. daan ne ma. ceeb bi am na ci ci kër gi. ceeb bi ñuy togg ci kër gi. man maa koy indi. man maa koy indi. dafa ni maam Faye. dafa ni maam Faye. ñaata saabu ceeb mooy doy. ñaata mooy doy ci ceeb. maam Faye maam Faye ni amul amul lu lay wax. fii yëpp man la. fii yëpp man la. mu ne ko ni ma yónnee fukki saabu ceeb. fukki saabu ceeb mu jëkk. keroog ñu ko yónnee nekkul daal. kon nga xam ni. kon nga xam ni. ñëpp am yéen. ñëpp am yéen. jarbaar yi def na lu. jë jë. xarit yi xarit yi. am na ndaw soo xam ni. jarbaar yi. am na ndaw xaw ma la ah, ñëw feeñ. bis bi la ñëw a ma ko jàngal. dama daan dal leen ma xaw ma leen. ay juróomi at muy dal ci kon nekk alaaji xalifa Guèye alaaji xalifa Guèye ñu ngi ciy sant di sant Abdou Silla di sant tabarkalla alaaji Youssou Niane di sant ñaan yàlla yi dafa ñu jàpp aar ñu wattu yi waaye nekk di sant nag ki nga xam ne nekk suñu jarbaat bi moo koy conduire muy alaaji Modou Modou Ndiaye tabarka baax na man loolu maa koy roof ak toggokat yi xalifa Guèye kooku moom mooy kilifa kër gi loolu la yàlla dogal bu ñu nangoo ko ka xalifa bi rek mooy Serigne Babacar xalifa bi doy na njabootam macha allah mention spéciale du ñëpp ñu tudd njabootam ñeneen nga xam ni ñëpp am nañ ci gën xol ak sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp suñu commencé lim dañuy juum waaye nag. loo maatu sama waatu maatu la yàlla gis na ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp xool xool sedd na suñu xool sedd na sa sotti daam dafa wax ni daam daam dafa ilaa. وجزينا أبدا عنا محمد المختار في القدم مدني وسليا يا إلهي وجزيا أبدا مالكنا نعم. عنا محمدنا مختار في الخدم لله در مجيب بن قال سائله إن الرسول بقد للمرسل حتاكي مولانا وصليا يا إلهي وجزيا مالكنا محمد